yee moo tay man maa ko bëgg di ko topp man Balla Gaye man maa ko bëgg di ko topp. léegi ñëw ñu ci combat bi ndox bu bëre yi dox ci yow. dëgg la maa ngi tedd du Balla Gaye moo may teral yàlla may teral. dégg naa da ngaa ñëw ci combat bi. moom laa Balla Gaye ma gën a jàpp ci déggoo ma. safaru Serigne Touba. buñ daanee Balla Gaye nan laay siggee di xool nit ñi safar. billaahi man Serigne Touba rek laa ko wóolu. ne kon victoire Aladji Mbaye bi. dama ne ko Mbacke Balla si. démb si guddi la ko wér. damaa julli ñaari rakk. boobu laa gëj a ñaan nag ña benn ñaan boobu laa ñaan bi may ñëw ci làmb maag Balla laa ànd ci kanam oto bi laa toog Balla ñoo ànd fépp ci ànd ñoo fanaan deux mois maa jox mu lekk maa jox mu naan barki Seexul Xadim billaahi wallaahi su ko joxul mu lekk mu su ko joxul mu naan te de man rek la bëgg ma ma fu sori ma ci combat bi ñu daan lu may safare damaa ñaari rakk ne Serigne Touba Xaadimu Rasul yàlla laay ñaan yàlla maa ngi lay ñaan. Medine xoolal. jëmmi yonent bi déglu ma ñaan am solo dama bëgg ngeen bàyyi ci xel ñi ngay déglu bi may am samay kayit ñaan bi laa ñaan lu may am ci lu baax bi may tabax kër dama ñaan tabax sama kër bi may am xaalis ci compte bi tuuti dama ne yàlla loolu ni laa ñaane bàyyi leen ci xel yàlla maa ngi lay ñaan ngir jëmmi Seydina Muhammadu Rasulullah nga mayal ma Balla ndam Serigne Touba yow waxal mu am eh. <laughs> léegi ñaan boobu yàlla da koo sañ a rejeté. mais mais ñëwal ni tuuti c'est bon mais mais ba bëre bi foog mu ñëw ci bëre bi am tay mbiru déglu ma yàlla maa ngi lay ñaan ngir jëmmi Seydina Muhammad ndànk ko yow tudd naa ci ndànk naa yàlla tudd ci Seydina Muhammad ne Serigne Touba ngir jëmmi Serigne Touba yow suñu yaakaar tey ëllëg appuyé loolu ci borom mu nangu ñaan bi. léegi appuyé na ko ñëwoon ma ci tey combat bi na mu déroulé. ak wàccaay bi a kawoo na ci Gris kawoo na ci. mais combat bu metti waa léegi nangu ngeen ni Balla Gaye 2 moo ëpp jom ci àdduna. coup bi Balla jël ku ko jël jëloon daw génn saako. jël na ko de nañ jël foofu temps une minute rek. waaw waaw.

ma xam. yooyu sama xol la may xolam. muy bokk lépp de fi muy tëdd man maay tëdd si ma buy lekk. loolu ana buuse buy lekk ana këccëg fu muy jëm këccëg yéegal. comme beneen combat bi. bi am fii mars. ah am na date. 13 ah. mars. mooy kan ak kan. booy ñaa Balla Gaye. fii ci estade Pikine. 13 mars wala 1er di ci wax. <laughs> foog ma dem sangu ba set. maquillé wu. maquillé wu. waaw sol jasneer bu bees tàkk. teg la say tàkk. teg la samay tàkk sol marakis yu bees yu liis. laal musuwaar. laal musuwaar teg sama jéego. ndox du ma sponsorisé kenn fii. mais kañ la sa baat daa dee. sama lan sa baat daa dee ni nga daawoo waxee nii di. sama xarit moo am ndam. dëgg la dañoo jóge ci bis. Mhm. Médoune mi ngi baax. maa Balla Gaye 2005 ba tey ñu ngi ànd. yàgg na mais boobu aw ma visibilité. waaw ah. kenn xamuma. tey euh, dama koy vidéo sax dugal ko euh, euh, téye ko doom foo ko dugal boobu ay estati amul ak yoon. Ah. ma tukki ba ko fi. Mhm. ñuy déggante saa yu amee combat ma ci jàpp. Mhm. su ma ñëwee fii assisté ko mais du ma feeñ boobu siiwuma. Mhm. kenn gisul ni buusee ñi ànd ak moom. mu daanu contre Bombardier li wax lu ñaaw lu ne. lu ñaaw loolu ñu doon wax. xamuñu ni sama xaritu démb lu dëgg la dëgg la léegi bu ñu waxee lu ñaaw ba pare ma toog ak moom wéet ak moom ci nekk mm-hmm. ne ko gaynde ci loo yaa ngi ci jàmm sa état de santé dama nga defaraat ko bu baax teg ci man dama laa ameel bor mu ne ma ban bor mhm. ma ne ko nit ñi ne nañ man maa la yàqal bi passé damaa bëgg fay bor bi bañ ne la bul wax di loolu mu ne ma kii sa kanam mm. mm. dëgg la sëñ mu ne waxaatal loolu rek may ko may ne ko bul waxati loolu ñëwaatal fii la amul seede mu ne ma bul waxati loolu boo ko waxatee mm. dinaa la bàyyi ma ne ko loolu dinaa ko wax dama lay fay bor bi ndax man gor laa mm-hmm. taalibi Serigne Touba Xaadimu Rasuul laa bëgguma gàcce dëgg la man xaw ma gàcce gis nga li bàll di bëre yëpp mm-hmm. xam nga lan moo tax ma gën cee sonn gën ci rey sama bopp pour mu am ndam nan laay siggee di xool nit ñi di safar safar. tey moom préparateur mystique nga tey moom préparateur mystique. dàlloo ay semence dama koy dog xam nga lu tax ma koy dog. tungalu du teew ñuy nataal bëgg a wax taxu taxumaa wax mm. ah. billaahi wallaahi watallaahi kii di wax kan la yaay mm-hmm. kan sëñ Mbàkke bëgg lu baax no waxal kii a lépp Balla Gaye dama lay waatalaat ne billaahi wallaahi watallaahi su fekkee kombaa bi defu ci ay millions yàlla bu ma gisanteeg sëñ Touba yomal xiyaam li tax ma mën koo seede mooy dama cee ànd ak moom suba dama cee ànd ak moom guddi dama cee ànd ak moom bëccëg dëgg la rek am nga xamante ni samay nitu bopp la uh-huh. xam nan li may wax dëgg la barki démb boo njaay dafa am benn geste bu am hmm. sénégalais léegi nag tey dama bëgg ñu juge fi bopp ba addunay tukki ñuy wax lu baax ci buuse. am na solo fan fan nga dem. lan la lan la geste bi lan man mën naa koy leeral. waaw dinaa woowaat presse bi ñu bëri. ndax kii sama nit la. Cheikh Mbacke wax ma li may wax man. Mm. li ma la wax mooy barki Demba Ndiaye open presse bi. waaw ñun ñaar ñoo ko préparé wu ko. man ak Boucher ak Balla Gaye ça fait quatre mois ci ginnaaw man Balla Gaye ci sama oto lay ànd ak man ñuy dem di ànd ak oto kii kon bu yàlla dogalee ñu wax li ñuy wax ba pare mu ñëw am lu mu koy wax ci benn geste ni Balla Gaye tàllee la loxo bi. Mm. ñu ne Balla day humilier Boucher. waaw Balla Gaye doomu aadama. waaw du ko humilier bu ko humilier woon du ko indiwaat ci biiram. te kii mooy biiram mooy biteem. nit ñi nañuy wax lu baax. sëñ Touba danaan wax naan kuy def lu baax di wax lu baax lu baax ngay am. waaye kuy def leneen di wax leneen.